gis nañ li nga xam ne moom la xew moo xew jot na am sotti yu ndaw yoo xam ne am na par rapport ak euh, arrestation bi nga xam def nañ ko ñun bi ñu demee buntu assemblée nationale waaw damay ñëw pour expliquer ce qui s'est passé en réalité dëggantaan ce qui s'est passé bon ñun dañu jàpp ne en tant que sénégalais en tant que des jeunes sénégalais activistes am nañ droit manifester amul benn lieu fii Sénégal bu ñu amul droit manifester alors ñëpp xam nañ loi bi li si topp et tout loi yoo xam dafa dafay ñëw loi yi ci boppam day mabal constitution au Sénégal on a trouvé nécessaire en tant que activiste gis ni dañu war a jug manifester assemblée nationale ñëpp ko dem buntu assemblée nationale on était quatre on quatre man la Bayna Guèye Abdou Karim Guèye Ousmane Sarr Fallou Mbaye ak Thierno Sall donc on était cinq on était police plateau fa la ñu fekk ils étaient deux ils sont venus dañu ñëw nañu jóge leen fii quoi jóge leen fii dañu leen di yóbbu ñëw nangu suñuy téléphone bi ñu yóbboo ils nous ont amené ci à plateau bi ñu yóbbee commissariat plateau teewuñu fa 30 minutes defuñu fa 30 minutes ñu génn ak ñun def ñu si oto yi on n'avait pas compris ils sont partis avec nous ba autoroute bi si niveau coloban ñu wàcc nañ dem leen ñibbi on s'est dit mais ñun on a droit de manifester. mais dañuy taxaw pour manifester par rapport ak li nga xamante ni wane suñ indi ñëw par rapport ak loi bi nga xamante ni dañ ko war a voter suba jeudi soir jeudi si guddi la alors on a retour on a retourné ñu delluwaat assemblée euh, assemblée nationale bi ñu demee assemblée nationale nag dañ fa fekk nag police parce que bi ñu njëkk dem y avait pas la police là-bas fa lañ fekk police fa lañ fekk nag commissaire ma Serigne Faye euh, bi nga xam moom moo géré groupement opérationnel bu Dakar euh, mu nekk moo nekk camp Abdou bi nga ko fekkee déjà man dama wàcc j'étais avec Fallou dama wàcc rek juste discuter bi rek ñëw di wax Macky Sall dictateur mu commencé saaga faut le corriger dóor leen ko il faut di saaga saaga yu ñaaw yoo xam mënuñu ko wax ci télé di saaga saaga yu ñaaw quoi bon man je me suis dit man je me rien compris après ñu song ma dugal ma ci oto bi di rey seen bopp moom lui-même moo njëkk jël benn casque policier di ma ko dóor ci ci au fait j'ai senti que ni a voulu ñu jël ñu yóbbu ñu ils nous ont emmené bi ñu yeggee police centrale j'ai vu que ni bugguñu fa téye aussi ils nous ont juste tout juste enregistré quoi la ñu suñu tur suñu sant après ñu jël def ñu si ay pick-up menotté yóbbuñu camp euh, camp Abdou Diassé yegg camp Abdou Diassé le même commissaire euh, ma Serigne dañu yegg ñu commencé on était menotté ah on était tous menotté ñu ñëpp la ñu menotté ñu commencé embargo dóor leen dóor leen ñu commencé ñoom ñëpp dañu dóor lu am nit comme kuy dóor ay sàcc quoi comme si on était des au fait comprendre lool yoon tamit il s'est permis di dóor bon comme man en fait man ce qui mooy ñi ma àndal maa ngi gis ni ñi ngi naan Karim dafa feebar ñoom ñëpp ñu ngi daw tëdd sama kaw pour bañ dóor laal ma quoi Bayna ak euh, Fallou Mbaye Thierno ñoom ñëpp ñu ngi tëdd sama kaw quoi ak Ousmane Sarr mais après ñoom man man j'avais pas naa ne ñi ngi dóor di dóor ma man dóor laalu ma quoi parce que ñoom ñi ngi tëdd sama kaw policier yëpp a ngi dóor moom aussi bi ñu paree bi nga xam dóor na ba ñu siggi mu ne c'est bon c'est bu ñu siggee mu ne ma noo tudd ma Serigne Faye le commissaire lui-même ma ne ko Abdou Karim Gueye ci la commencé nag di ma dóor quoi moom lui personnellement jël engagement wu moom il a il moom de gérer quoi moom mooy gérer bon au fait def na li muy def ko def ñu mënute xam nga ko mënute je pense que mayoo ko sax pour mu pour mu li ngay dóor quoi dóor na dóor def lu ko neex man man j'ai cru man sama sama collègue sax dafa dam parce que tellement il a mis toutes ses forces ci dóor yi mënoon dóor sama sama si sama sama après ils nous ont ils ñu foo xam ni bon kenn xamul cellule la xamul lan la mais li gën a doy waar au fait man ce qui m'a à à dire que ni ñu taxaw si lii xëy na peut-être sax c'est pas parce que ci mbedd bi lañ dëkk quoi amul problème Sénégal jar lu nekk gars yi dañ naan da nga feebar man Sénégal moo ñu gën a feebar lii yëpp c'est le combat lii mënul dañ lii taxul ñu bàyyi dem nañ buntu palais manifester fa dem nañ buntu assemblée nationale manifester fa buntu kër Macky Sall Mermoz moo des te dinañ fa dem donc comme ñun lii du moo ñuy wàññi quoi mais problème mooy le commissaire lui-même déglu leen bu baax li may wax c'est très important il s'est déshabillé dem xam nga bi muy dañoo sol seen masque yooyu mu dem changer yëreem sol yëre olof il est revenu bon mel ni ku jouer cinéma quoi comme fii comme si comme si de rien n'était comme si c'était pas lui qui nous frappait quoi ñëw naan non mais bàyyi leen ñii non solo leen yëre waay wala jox leen si vêtement ñu sol naan lii c'est pas humain comme si ñun dañ dof quoi en fait après il est man li ma marqué mooy dafa wax ni moom Antoine Diome c'est son ami quoi moom sànq la jógee ci bureau Antoine Diome ak ak ak ak y avait le préfet là-bas le préfet qui est affecté là qui vient d'être affecté waaw Alioune Badara Samb mu ne mu ñoom ñoo nekkoon naan loi bi yéen yéen i loi bi dara nekku si au fait c'est comme si c'est moom du alkaati quoi man au fait man j'avais du mal à comprendre au fait il était là pour défendre ay loi di défendre loi bi di wax loi bi dara nekku si xam nga yéen ne euh, yéen oppos opposants yi yéen ak yéen ñi ngeen di ñoom 23 juin dañu yaakaaroon ni peuple bi dañuy jug peuple bi juguñu moo tax ñu bëgg coûte que coûte indi problème quoi man je me suis mais léegi ana où la police quoi parce que y a des choses yoo xam il faut sénégalais comprendre ko que man à chaque fois dama koy wax dama koy wax jumari sax des fois dama la police sénégalaise loolu c'est pas la police au fait du police parce que même les policiers qui ñoo xam man bi ñu may dóor bu nu assemblée am na si police yoo xam dañ dañ doon couvrir nii bañ ñu dóor ma donc pour vous dire que c'est pas la police au fait ay quelques uns la yoo xam c'est des lâches parce que même dara nit nit rek être humain waroo takk nit di ko dóor takk ko di ko dóor loolu c'est pas humain donc man mënu ma la police mais damay condamner ay quelques uns yoo xam ne il veut être ay postes parce que moom instant yi moom moo géré moom ñu ko euh, noonu xam nga pour am ay mission yooyu ak tuuti wecc di ñaam xaritoog ministre beeg yooyu moo tax après mu ngàbb làmmiñam quoi ñëw mel ni bëy di bëri wax suñu kaw lu nekk wax na ko foofu donc man je pose la question au fait fan la Sénégal jëm parce que ñun est que war nañ bàyyi qu'on en mal avec la police aussi est que problème bi c'est nous avec la police c'est que ñooñu war nañ tax ñun ñuy attaquer police parce que am na police yoo xam ne dañu c'est inimaginable parce que ñun dem nañ plateau dem nañ central dem nañ police bu ne mais policier musul yëkkati loxoom laal ñu même policiers yi nekkoon foofu les les les bérets rouges là gémi euh, sax ils n'osaient même pas nous moom la commissaire moom moo jël en charge moom ne dafay dal suñu kaw donc message bi moom ñu suñu message mooy on veut savoir quoi lii lan la léegi nag dañ koy topp si yoon ñu dugal nañ tey plainte au niveau du tribunal ci procureur euh, que ñun kat ñëpp dañu blessé dañu gaañ man dama je peux même pas prier xam nga dañ ma gaañ gaañu grave je peux donc léegi ñu nu bëgg xam quoi dañu bëgg comprendre di xaar ndax justice dina def liggéeyam ci ma Serigne Faye mii nga xamante ne nii au fait c' un nervi quoi c' pas un policier parce que mënu comprendre yow nga nekk un officier de la police sénégalaise ba pare nga am sañ-sañu taxaw di ne da ngay def le sale boulot parce que un ami de tu un ami de Antoine Diome le ministre de l' intérieur parce que da bëgg ay privilèges wala da bëgg ay amul dara dara lu tax ñu dellu ginnaaw ci xeex bi ñuy xeexal Sénégal et manifestation yi pour loi bi nga xam moom la Macky Sall dugal duñ ko bàyyi dañuy continuer di manifester que personne ne pourra nous empêcher de